yàlla na sunu borom tabaraka wa taala def mu yàgg koo tooge te mu dolli ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër noo ngi sàkku ci ñépp nu maase ñaanal ko borom bi kàttanal ko ba mu àggale yéenéem ci lislaam àggale yéenéem ci ñoñ lislaam te àggale yéene taalibe yi ci moom noo ngi nuyu di siyaar di ñaanal boroom dëkk bi sëriñ Abdourahim jóob mii nga xam ne moo toog jataayu sëriñ sàmba Diop Sam ñaanal ko li ñuy ñaanal kilifa gi te moo di yàgg fi ak yeggale ci barkeb sëriñ Touba noo ngi nuyu daayiratul mubaarak bépp ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la daayira bi lëkkale di leen sant di leen gërëm ndax am na loo xam ne ku ci nekk woola la dalaa bëggal njariñ lu toll ni loola loolu nag kon noo ngi leen ciy sant noo ngi leen ciy gërëm noo ngi ñaan it nu yàgg koo ànd ci barkeb sëriñ Touba noo ngi nuyu bu baax sëriñ Mbàkke Abdourahman ak bokk yu baax yi mu àndal di ko sant itam ci waxtaan wi di waxtaan woo xam ne dañu ñaan sunu boroom mu defal nu dégg ak topp te boole nu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ca gën a rafet ci loolu la njariñ nekk waxtaan wi ni mu nu ko digge woon ci njëlbéen bi nu ko teeloo ba ni waxtaan wi àggee lim nu ci diggan lépp gis nañ ko ci waxtaan wi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi sëriñ Mahmoudan mii nga xay si moom lañ tudde wajuram wa sëñ Mouhamadou lamin Diop bis bii tey moo leen di nuyu jaarale nuyoo bi nag ci sëriñ mun Mountakha Mbacké waaye muy dox ba ci taalibeem bu mag bii nga xay mooy sëriñ Abdourahim Diop xalifa sëñ Massamba Diop Sam waaye nuyoo boobu nee na mi ngi dox ba ak ci sëriñ yi bu jóob mi nga xay moom la sëñ abdourahim jaarale diggante daayira mubaarak ci diggante sëriñ soxoy bu mi nga xay si ni mooy moom sëñ ma jóob ma sàmba te yàlla dox yàlla def mbir mi di dox ba agsi ci loxoom bim agsee ci loxool sëriñ soxoy bu jóob moom sëñ ma jóob ma sàmba mii jiite daayira mubaarak yàlla def ñuy xelli seeni xel mu rafet moo xay ma ne sa koo jariñoo ba tudd sëriñ Mouhamadou Lamine Diop moom sëñ ma sàmba Diop ni ko bis bii yow lañ ko tudde bis boobu di ban bis guddik àjjuma jii tey asamaan set di gaaw ñaari fan yooyu yépp di sëñ Massamba Diop ñu cërale ko sëñ Mouhamadou Lamine sëñ Mouhamadou lamin moom i meññ sëñ Mahmadan mii nga xay si ni moom tey jii moo fi xalifa sëñ Mouhamadou Lamine sëñ Mahmadan nag dañuy wax ni garab loo fa gajje moo fay jibbee waaye danga nga garab am lu fa jibbee loo xay dañuy wax ni moo gën a naat la nga gajjan waaye moo gën a meññ la nga gajjan sunu boroom nag def fiin tool tembe ci xalifaam lañ tuddee bis bi wajuram wa sëñ bay jaxate nag di wax cërum nit cërum nit naxam cërum nit ku bëggit ba fa sëñ soxoy bu jóob sëñ mohamadan yéen la yàlla boole teyit ñuy wax ni jataay bii de am na yaari at yoo xay jataay bii amul waaye jataay bii ci seen diggante yéen ñaar ñii ci la ko yàlla fottalewaat ñu tàmbalewaat jataay bii mu jëm ba ilaa yow mi diini ñuy ñaan ci barkeb sëñ Abdourahim Diop mii di nekk xalifab ma Massamba Diop waaye ci barkeb sëñ Mountakha waaye ci barkeb sëñ Mouhamadou Lamine moom mii ñu tuddee bis bi ba ilaa yow mi diini lii ñuy def te di ko ko cërale te tàmbalewaat ko tey jii dara bañ koo yàq muy yokk ngeen am ci ndam ak ndimmal ba faw ci kàttanuk sëriñ tuuba ak sëñ ma Massamba Diop mii nga xaayi sii nii moom mu ko seet mu tànn nu boole ni ci boppam di wax ni sëñ Mahamadan de moom liñ ciy wax lu néew la mooy liñ xam ci moom lañ koy xam waaye walif waajuram woowa sëñ Mahamadan sëñ Mahamadan mi ñu ko tudde duppee ko ko yàlla def ñu jox ko ko mu muritu ko ba wàcc ba jëmmit jamono jii mu fongu kër ga lool am ñaari cër waaye dañuy wax ni ñetti cër muy kër sëñ Mahamadan moom yi ñu mu muritu bam ni ko jaajëf waaye kër sa maam Thierno gi nga xay fa la ko sunu borom dël ay ñeenti buntu këram ñeenti bunt këram yooyu fi wetu sëñ Amsatu Mbàkke di mbokkam mu ko jige lool waaye ci sëñ Masamba Diop mi nga xay moom la moo meññi waajuram waajuram meññi ko muy dox ba bis bii tey ñu tuddee ko ko muy wax ni waa daahira mubaarak lii de am na ci mbégte moo xay siini mi ngi leen di sant góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di wax ni nii daayira bi doxe alhamdulillahi rabbil alamina waaye nag mi ngi fab ñaan teg ci kawam ñaan nag sañees na ko ndax yàlla moo ni ñaan leen ma ma may leen ngeen sant ma ma dolli leen ñaanam googi nag fi mu ko tubbe mooy fi ya ñett ñii ma wax ki mu doon liggéeyal ba ni ko jaajëf waaye euh, maam Thierno mi nga xay fala woo waaye sëñ ma Massamba Diop mi ko meññi ndax moo meññi waajuram ñetti ñaan yii nag sunu borom mën na koo barkeel tey yaakaar mbooloo mi nga xayit yéen a xool ba gis ni euh, sëñ Mahamadan mii tey jii moo cëroo bii kon yéen mbooloo mi mi ngi leen di xamal ni xolom sedd na guy yi tey jii mi ngi wax ni bu aman adduna la ca biir wala luy war a defal bis bépp moo koy def tey waaye ñaan yi nga xay mi ngi leen di yooyu ñaanal yàlla mën na ko cee dimbilee ba lu ngeen bëgg ci daayira bi lu ngeen bëgg ci mbooloo mi ngeen am ko mbooloo mi nag nee na ñu ngi leen di xamal ni sëñ Abdou Lahad de nee na yaakaar ni baax na baax na lool waaye mu wóor la ni baax na moo ko gën wóor na ko ni mbooloo mii ànd bi ñuy ànd liggéey bi ñuy liggéey kaamil yi ñuy def baax na lool njabootu sëñ Massamba Diop nag mi ngi sant yàlla sant di sant yonente bi di leen wax ni alquran ji nga xay mooy lépp ci Serigne Touba di lépp ci sëñ ma Massamba Diop mi ngi leen ciy sant ndax tey jii bu asamaan setan ñu dajale liñ fi jàng ci kaamil dana lim ba dana am solo lool te lim boobu boo ko doon xool sëtam yi rek waaye sët yu góor yi ak sët yu jigéen yi ndax biñ waxee sëñ Touba moom de day jigéen mu day góor mu ni bu day jigéen mu ni bu doon góor nag bu dee jigéen it nag jigéen moom ak góor ñoo yem ci alquran damay wax ni njabootu ma sàmba Diop bu jigéen gi de li fi mokkal alquran mënoo dem fenn fu tibbalee ndab fi sëñ fi fi sëñ Touba ba am lu toll nii lu lu fa mokkal alxuraan ci waa njabootuk sëñ Massamba Diop ndax man naa ni man sama ñaari doomi rak yoo xay kenn ku ci ne bind na ñaari kaamil waxuma jàng bind ñaari kaamil sama ñaari doomi rak def nañ ko te di ko jàng te fi toll buñ déggan limub kaamil yii da nga ci dégg soxna yu bari yoo xay si moo góone yu góor yee ko ànd di ko def ku nag loolu sëñ Mahamadan nee na mi ngi sant waajur yi yi nga xaay ñi ngeen jàngal seen doom yi alquran di leen yar di leen defar loo xaay si ni ku génn buñ la nee kii sëtu sëñ ma saamba Jóoba du am kersa waaye mi ngi doolee dénk sët yéetam lii fi sunu baay maam bay nan ko yor doxe ko doxin woo xaay bu ëllëgee te xam ni mag la ñuy liggéeyal de mag mu jëkk fi sëriñ Touba mag mu jëkk fi sëriñ Touba te sëñ Tuubaa nangul ko boppam moom it kun nan fexe ba moom moomee li ñuy def mu nangul nu ko muy sëñ ma sàmba jóob mii sëñ ma Mahamadan nee na lim waroon a wax lépp guddi gi dafa xat waaye li ëpp solo daal mooy sëriñ soxoy bu jóob moom sëñ Mat Diop ak li nga bokk boole ànd ak ñoom yàlla na leen yàlla defal tawféex ndam ndam ak ndimbal loo xaayi sii nii lu ngeen liggéey sëñ Massamba Diop gërëm ko lu ngeen liggéey mu def barke tey waxtu wii nga xaayi fi la ñu nekke di màggalal sëñ ma sàmba Diop ku fi jóge wér wërsëg jàmm xéewal guy baawaan ba ilaa yow mi diini nga ànd ak moom lépp ku ne xam na ko waaye xam ngeen ni lii sëñ ma Massamba Diop sunu borom moom moom la ko defal nga ñëw ba ci digg kajoor gi ak melokaan wi ak mbooloo mi nga xay kenn ku ci ne lépp loo liggéey attan nga ko ñàkk ci bisub tey bi ngir sant sëñ Massamba Diop waaye nag mi ngi sant ñi nga xay sii ñoo yore organisé bi waaye ñi ngi sant ñi nga xay sii ni ñoo seeni xel xel li ba daj baayam bii di sëñ Mouhamadou Diop kun daal dafa ni wokkal ma du fa la neex waaye wax dëgg yàlla xam naa yi am na lul sëñ Mouhamadou waxat na ma ko waaye ci lu ci des ci man mii la waaye moom xol bu sedd ak ñaan gu barkeel te bari mi ngi koy def di sant nag sëñ bi nga xaayi moom keneen dana ci ñëw sax waaye mi ngi xam le ni ku ne xam na ni sëñ Masamba Diop mii sëñ Touba dëbb na ko kàttanam ndax sëñ yi nga xaayi si nii du mat weer wala yaari weer yoo xaay boo demee jumaa yi Tuubaa dégg mu naan sëñ bi nee na alxuraan nee na yàlla nee na kon bu nu yàlla yekka walee ba mu ñëw ci mbaarum sëñ ma sàmba Diop mii dinu wax liy jariñ ak dinu xoolal fu ñuy war a moytu war na ñoo xam ne kon sëñ ma sàmba Diop am na lu ko yàlla defal ci taalibe ci bokk yi ci mbusoobe ak mbàkke alhamdulillahi rabbil alamin kon dañuy daal yamal foofu ndax li nga xay sëñ bii dana ko faral di wax sëñ bàllakan li duuf ci eh, nag wi xajul ci cin li waaye xool bu sedd daal sëñ Mouhamadane nee na laltaay na lii ko jox fonk na ko ñaan na ci teyit ñi ngi ñaan bu déwénee kuñ koy jox ku ne mu fekk fi ñaanuk sëñ la Mouhamadou Lamine bu ci moom mi di ball naat di ay xéewal yi ko sëñ Abdoulaye waxe ba ilaa yawmi diini jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi dégg suñu kàddu yëpp ñoo ngi leen di nuyu. ñoo ngi leen di baalu ginnaaw bi nu jiitalee ci kàddu nuyoo bi ak siyaara bi al xalifatul am li tariqatil muridiya as cheikh Muntaxa di ko jaarale ci sëriñ Abdourahim mi nga xam ni mooy boroom jotaay bi. di ko jaarale ci sëriñ Sohaybu moom sëriñ Fallou Diop di ko jaarale ci sëriñ son bu moom sëriñ Muudu Masamba gannaaw bi ñu leen nuyoo ci kàddu suñu kilifa yooyu nga xam ñoo ñu dayloo ci seen tawféexi bopp jëm ci mboolem jullit yi nga xam ni ñoo teewe ci jataay beeg mbooleem ñiy dégg suñu kàddu yépp muy kàddu cant ak ngërëm jëme ko ci bis bi nga xam ni bisub dundal ndigalul sëriñ Tuuba la ñu di ko njëlbeenoo ci njàngum alxuraan ak njàngum xasida kon cant gi dañ koy jiital ci ñi nga xam ni ñoo amee woon jataay yooyu muy njàngum alxuraan mi ak njàngum xasida mi boo loolu jàllee ñu koy jëme ci ñi nga xam ni ñoo doon taxawu bis bi te tàmbali ko daaw ba ren jii ki jiite liggéey woowu di Serigne Soy moom Serigne Fallou bi nga xam ni moom la Serigne Abdourahim doyloo ci mbooleem njaboot gi teg liggéey bi lépp ci loxoom moom it mu doyloo rakkam di sëriñ Soy bi moom Serigne mo Serigne Mouhamadou Massamba Diop mu ànd ak mboolem daayiratul Mubaarak di daayira bi nga xam ni moo lëkkale sëriñ Serigne Massamba Diop yi ak mboolem taalibe yi ñi ne ci réew mi ak ñi ne ci bitim réew bu dee ci wetu taalibe yi ci njiitul sëriñ Màkka ba ñu leen wax ni sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanam di leen xamal ni taxawaay bii ngeen taxaw mooy taxawaay bi nga xam ni moo war ci diggante ab taalibe bi ak ub sëriñ ndax loolu la fi mag ñi nekk woon loolu it la mag ñi ànde woon yeesal gi sëñ Tuubaa doon yeesal diine te àndoon kook mag ñu wut yàlla doo nga leen boole woon kenn ku nekk futtiku defoon ca jomam defoon ca ngorom te lépp ñu ànd ko fitna ngir xataayu jamono bi ku ne xam na ni jamono jooju ni meloon ndax buur yi buur yi ni ñu meloon ak nit diine yi ak dëkk bi ni mu xatee woon nga xam ni kenn ku nekk foo mën a toog ba dundal fa sa ngor yombut na fooy jaamoo yàlla waaye lépp bi sëriñ bi jógee jaayante gi mu jaayante woon digganteem ak boroomam mu jaral kilifa yi ñoom ñu bàyyi seen lépp ngir wut yàlla ànd ak sëriñ bi ba sëriñ bi defal leen li mu leen defal ci taw feexi boppam loolee la mag ñi tée ba tey jii sunu maam ya àndoon ak ñoom magi bi ya àndoon ak ñoom loolu rek moo fi nekk ba tey jii kon sëriñ bi nee na kenn ku nekk na nga xam li la dugal ci yoon wi ak li la ci bàyyi mooy wut yàlla kese lu la ci fekk nga xam ni yàllaa toll noonu ndax suñ borom moom loo ko defal te jëmmam tax bu lay defal ci jëmmam la lay defale loola waral nga gis may yi mu toll ngëneel yi ni mu toll ndax sëñ Tuubaa dani wa muddali xeeran bi xayri sadma bi ko yàllay fay daa àgg ci ni ko nëttatuma peeseetuma mooy dafa mel ne lu ñu balance la ci forage bi rek nga xam ne yow bu bu bu bu dogatee yaa ko dogal ndax sa robinet bi nga balance la ci forage bi boo tëjee sa robinet rek yaa tax yaa teemu yaa teemu yaa teemu xel li waaye boo tijjee waxtu wala soog bu dégg waxtu woo subbee gis gis ngëneel li noonu la mayu Sëñ Tuubaa mel looloo ne ci dëkk bii moo nekk kër Cheikh Ibrahima Fall moo ko sëñ moo nekk kër sëñ Cheikh Issa Diène kër goo dem looloo fa nekk loolu nag ginnaaw biñ ci biñ ci yeewoo comme nii ñu xam ni suñ kilifa yu baax yi fi nekk ñooy ñooña kon ñun ñiit ñooy ñooña kon kenn ku nekk loo ci ci yow la dese sa jom ak sa ngor ak sa taalube ak sa pas noo ko wute noonu nga koy amee kon nag ndigal laa ngi noonu kàddu noonu na ku nekk xam ni li ñu fi indi te bàyyi ñu fi mooy jaamu yàlla waaye li ñu booleeg sëñ Tuuba mooy jaamu yàlla ak taalibe du lenn lu may rafetal sa diine te wut kilifa goo xamante si la nga mënulu sa bopp maanaam nga koy royee ci moom yaa ayyuha llazina amanu taxu wabtaqu ilayhi alwasila suñu borom moom dafa bëgg kenn ku nekk boo jógee nga jaar yoon wi nga wi ngay jaar ba agsi ci moom ndax yoon wi daa amul fital toppante rek la saa boo gisee ku la gën a gaaw dox nga topp ci ginnaawam lay daraja yi boppam la nga mënul sa bopp mu mënal la ko loolu dana lay yóbbee ci euh, daraja joo xam ne mënoo fa woon yóbbu sa boppam kon nañu góor góorgóorlu ci talube gi te góor góorgóorlu ci pas-pasu diini yi kenn ku nekk lu lay sa faratay bopp ak euh, sa faratay njaboot loo ci mën a taxawee nga taxawee ko lay sa talube ci worma sa digganteeg sa sëriñ loo ci mën a def nga def lay sa taxawaay ci sa jaamu yàlla te lépp mën a aju ci liggéey bu lew loola it loo ci maa def na nga ko def te xam ne loola it ndigalul yàlla la ndigalul sëriñ bi la bu loolu jàllee nag kaddu gi gi ñuy jiital ci cant gi yi ci topp mooy sëriñ Mbàkke Abdourahmane mi nga xam ni moo ñu doon taxawee liggéey bi nga xam ni mooy gudd gi ñuy jiital ci liggéeyu suba bi muy conférence bi nga xamante si nii dañoo koy def ngir di ci jàngate suñu diine ngir di ci fàttalante loolu nag ak laabirante la wax na fi nag loo xam ni kenn ku nekk ca ga mu waxee ca diine am nga yóbbal boo xamante si ni boo ko taxawee te jëfe ko ko buñ fi teewaatee déwén da nga gis loola lu mu la jariñ ci biir ak ci biti kon sëriñ bi kàddu yi rafet na mat na matale na li ñu la doon taamoo lañu la ñu xamoon ci yow daaw ak daaw jéeg lañ fa wut si woon loolu lañ fa gis ba tey kon ñoo ngi feddali kóllëre gi tey sàmm suñu diggante ak yow tey ñaan liggéey bii mu mu tàbbi ca liggéeyu mag ña te ñu ànd ko lu yàgg-yàgg bu bu loolu jàllee ñuy sant Baye Serigne Gili Bousso ak Serigne Cheikh Bousso ñoom nag bu ñu leen sant day mel ni dañuy sant suñu bopp rek ndax ñoom seen kër maam lañu ñëw kenn lañ ci ñun dañoo bokk liggéey bi ñu ànd ko wet gi ñu man ñu cay def la ñu man kon ñoo ngi ñaan nag seen taxawaay boobu yàgg te yàlla gërëm ko di sant it Serigne Omar Kane Balaye sax moom na dañ koy sant cantuk boppam goo xam ni am na lu ma xam loo xam si ndax moom lu jege ñaari weer ngi nii am na benn documentaire boo xam ni doon nañ ko saytu di ko def fu ñu dem ñoo fa ànd guddeeg bëccëg ànd nañ ay bis ay guddi ñun ak moom ak Serigne Cheikh Ndiaye mii kon loolu daa wane ni waxtu wu nekk day wax ne man kër gi daa cee bokk waxtu wu ngeen ma soxlaa rek ñëw leen jël si ma loolu nag jëfe na ko kon nag ñoo ngi koy sant waaye ma leen koy seedeel xam ne ab taxawaayam ci kër gi noonu la mel liggéey bi mu liggéey nag te wax ko fii te kàddu yi mu fi wax kàddu yu mat a dégg la yu mat a topp la ndax yu am cëslaay la loola it man am na lu ma ci xam kon lu ma mën a jàpp la di sant sëriñ Mouhamadou Lamine Diop moom it kàddu yi rafet na lool waaye loola it muy wane ne rek moom it kër gi li ma wax sëriñ Omar Kane moo ci nekk ndax ay at a nii waxtu wi ñëw bu sëriñ Mbàkke ñëw lu ci bëree bëri ñuy ànd waaye loolu lépp safoo gun safoo kër gi ak xam ni kër gi barab bi la sëñ Mouhamadou Mountakha waxoon rek bi mu fi ñëwee fii ba teg fi tànkam kilifa gi di di ko jox dana ko ëpp naa def ni ko fii teg fi sa tànk rek doy na yóbbal loolu nag nañu xam ne kon li ñuy wut mi ngi fi ku fi jóge loo fi yóbbaaliwul yaa ko fi bàyyi boo ñëwaatee boo ko yóbbaaliwul te yaa ko fi bàyyi waaye mi ngi fi kon kenn ku nekk sa pas-pasu bopp ci la dese kon kàddu yi cant noonu la tëddee ki ci des mooy sëriñ alxaaji sëñ alxaaji mi nga xam ne moo ànd ak sëñ alxaaji sekk ànd ak sëñ bàkki abdourahman kon ñuy sant rek euh, cant yi ni ma ko waxee noonu euh, sëriñ Mahmoudan tudde gi ñu tudde woon sëriñ Mouhamadou Lamine Baara bis bi jubluwaay bi mooy xam ngeen ni kër gi day ay kër kër sëriñ Massamba Diop la waaye bu nee sëriñ Mouhamadou Lamine Baara doomi sëriñ Massamba Diop saam am na ñu ko xamul am na ñu xamul woon ni sëriñ Massamba Diop am na am sëriñ Mouhamadou Lamine Baara ba mu fi jógee yàgg na waaye nag ngir xamle ko ak ngir ñu jàngat ko xam ni it kenn la woon ci mag ñooñu joxoon ko borom dëru mu nekkoon ak moom xam nga sëñ Massamba Diop ye ku yàgg yeesal ay pas-pasam la ku yàgg yeesal ay pas digganteem ak sëñ Tuubaa digganteem ak ay kóllëreem looloo ko fa yóbbu woon fa la nekk ba ni suñu borom ndogalee lim dogal ci moom moom it fet ñuy fet di kóllëre googu ci moom ak ngir ñu jàngat kër googu ak jëmm jooju moo waral ñu dëpp woon ko bis bi waaye kàddu yi mu fi yebal yi mu fi yeble rafet na te mat na matale na kon noo ngi sant ndax it moom itam taxawaay bi rafet na lool bu loolu jàllee ñuy sant suñu mbokk presse bi di ni ma ko waxoon Serigne Cheikh Ndiaye ak euh, Darou Sam TV ak Benno FM ñoom it ñi ngi fi ñoom it ci ginnaaw doon nañ fi taxaw taxawaay bu am solo ci liggéey bi ndax def nañ fi ay émission def fi ay direct ba ci fi mu ne nii dañuy dañuy direct liggéey bi loolu lépp nag ngir tasaare xam-xam ak ngir tasaare jataay bi ngir ñi nga xamante si nii nekkuñ ci bis bi te war a jariñu ci bis bi maanaam di dégg kàddu yi ngir mën koo jariñoo kon kàddu yi nga xam ni suñu mbokk sama kilifa yu baax yi nga xam ni ñoom la sëriñ bi tegoon seen liggéey bu mag bii bu mat bii bu matale bii ñu doyloo ma waaye xam naa ci seen dimbalul bopp ak seen taxawaayu bopp ak seen bëgg ma liggéeyloo ci liggéey bi nga xam ne ku ci liggéey jariñu looloo ma ci tàbbal waaye ma leen ji sant sama cantuk bopp cantuk biir ak cantuk biti di leen ci ñaanal nag seen yaakaar jooju yàlla nañu ko suñu borom dundalee ca kóolare magee ndax mag ña kat seen yaakaar tësut seen digganteeg sëñ Tuubaa kon ñun tamit yàlla ba suñu yaakaar tas waaye nag nañ na liggéey yépp tàbbi ca liggéey yooyu rek suñu borom dimbali ñu ci biir ci biti liggéey bi yàgg lool ñu yàgg fee jataayoo lool te te mboolem liñ ci sàkku rek ñu dayee ci moom kon kàddu bi ci mujj hmm? waaw mu wax ni autorité bi muy li dala ci manis naa wax ni rek euh, xam nga ni ci ginnaaw doon nañ fi def benn CDD boo xam ni bu ñu ci tuddee ci kàddu kilifa gi nga xamante si mooy borom dëkk bi di bàyyi Cheikh Fat Sarr moo ànd ko euh, chefu commune rural bu Nganjuf bi di sëñ Ngouda Ka Ngouda 6 Ngouda 6 ak préfet bi su préfet bu Ñaaxeen préfet bu Tiwaawoon boobu ba léegi ñu jël ci ay dispositions yoo xamante si ni autorité publique bi yëpp mboolem yi ñu fi mën a yabal yëpp waxoon nañ ni dañuñ ko taxawee ci wàllu santé ak ci wàllu gendarmerie police sapeur pompier mboolem koor yooyu nga xamante ni dañ leen di soxla ci jataay yu mel nii ndax mbooloo boo leen dajalee war a saytu seenu dem ak seenu dikk ak seenu nekkin loolu ñoom ñi ko amee taxawaay bañ ca taxaw sëriñ bi nee na gis na ko te nee na mi ngi leen ciy sant mi ngi leen ciy gërëm di ñaan nag taxawaay boobu yàgg lool. loolu la waxoon ni naa ko jottali kon maa ngi gàttal kàddu yi lu ci matut rek na nga xam ni ci sama xel la dese waaye seenu mat ëpp na loolu noo ngi ñaan suñu borom gërëm kàddu yeeg jataay bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu